ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi barke borom tayif eh, bokk yi ba tey eh, liggéey boobu nga xam ne moom la ñu àndoon ci soo ba léegi muy fédération daayira soxna jaara ni ñu jógee léegi ci ku tedd ki ni Mouhamadul Muntaqa ginnaaw ba nu yendoo kër soxna Soda bintu Cheikh Madul Bachir ànd ak soxna Assou Mbacké moom Cheikh Amadou Moutala ak soxna Ami Samb miy jëwriñu liggéey bi ak mboolem ñu ngi ko bokkal agsi nañ fii ci e, orphelinat Soxna Jaara li ñu ko daan defee muy barab bi nga xam ne e, ndaw yi nga xam yàlla dafa dogal ñu doon ay tuut tànk wala yu soog a juddu su borom indi ci ñoom ak tumu na nattoo leen ko ñoom ñii ñoo leen di saytu muy barab boo xam ne yaakaar naa ne e, miin nañ sunu ñëw. waaye ñu nekk fële ci kër gi leen doom sëñ Modou Sa Dieng joxoon ba 2018 bi ñu ubbi daara ji nu ànd ko ak yéen. yitte jooju ak pastef boobu nag ba léegi moo nekk ci njaboot gi nga xam ne ñooy njabootu Serigne Touba gi ne ci Italie muy fédération Mame Diarra bi nga xam toll na ci fanweeri daayira ak ñeent daayira bu ne rek soxee ko ci daayira Serigne Touba yàlla dogal euh, mu soxna Ami Sam mi nga xam ne mooy suñu jëriñ ñu sakku ngeen ñaanal ko suñu borom yàggal ko fi te ko wér at mooy ñu ànd ko ak soxna Astu bintu Cheikh Mouhamadou Moutada nga xam ne wax dëgg yàlla dafa sof ay jéegoom rek su jógee wuy juróom bu tedd ba mbooleem fu seex mu talaa mas a dem rek dem na fa yaatal fa liggéey soxna jaara bi wax dëgg yàlla fu ci nekk tamit la li ñuy laaj ci daayira ba moom lay joxe ndax day wax ne liggéey sëñ Tuubaa ke ñun ñi yàlla dogal ñu ñu tuddul sëñ Tuubaa kenn waruñu cee man mm-hmm. te loolu mu ko noonu la koy jëfe bu dee Amérique ma fa bu dee Italie ma fa bu dee France ma fa bu dee feneen ma fa moom laa njëkk a àndal 2011 dem Suède ba <laughs> yanam naa bi ñu demee ci sëñ bi ko liggéey mm-hmm. ci taw euh, def ci toll cent quarante et quelques liggéey bi nag matul ñaari at 142 millions ndax ñi ngi tegoon xel le 3 février 2023 te tey ji lañ jëbbale caabi yi wala ko sëñ bi mu bëkki lool te mel na na nga xam noonu la bëggee woon te 96 96 euh, maam jaar mën nañ faa jànge muy wax dëgg yàlla muccee bi nga xam ne nañu ubbi dong yi dugg jàng am nay lal am na dencukaay am na lépp loolu tam ci sant yàlla baax a baax comme ni ñu ko daan defee rek ngir bañ a guddal euh, ñu ngi ànd ak soxna astum Cheikh ak njaboot soxna Soodam sëñ Basiru ak soxna Ami Samb ak soxna Fat Sile mi nga xam mooy secrétaire général fédération daayira soxna Jaara ak sëñ Ablaye Sile mi nga xam ne moo doon taxawu këru Poroxaan gi dortoir bi lépp ci loxoom la la la la tàmbalee ba ñu tegee xeer ba ñu jëbale caabi noo ko ànd waaw ak soxna Ndeyke bi mi nga xam ne moo nekk Emilia Romagna ak lenn ci jëwriñu daayira yi ak soxna Fatou Sylla Mbeng mais nga xam ne yàgg xàmmee nga ko bu baax soxna Fatou Mbeng mu nekk fa ca ca Touba Bergamo waaw du doon andi suñu barkeel rek toll ci 3 millions euh, tey ñaan ngeen euh, ñaanal nu nu yàgg ko indi te yàgg leen fekk te mu nekk mu fulu ndax liggéey bii ngeen di def hmm. fédération daayira soxna jaar bii la waroon hmm. ndax soxna Jaara mooy ndey ñëpp kon ku leen wuti ci liggéey booba dimbali ngeen donc ñaan sëñ Fall yow tamit yàlla guddal sa fan te may la ndax liggéey bi rafet na te am nga ci constance ndax def lu baax yomb na waaye am ca constance moo jafe mën naa baax def lu baax tey bu subaa mu génnee ci waaye da nga dëkk ndax ba daara gi taxee ba léegi yaa ngi ñoom guddi ak bëccëg subaa ngoon te xamul loo manqué yal yàlla guddal sa fan te nga day ci ngër mu sëñ Tuubaa jërëjëf <laughs> jërëjëf aleykum wa rahmatullahi ñu lay nuyu baax di jiital ci nuyu bi nag suñu kilifa gi fi teew muy soxna Astou Mame Cheikh Mouhamadou Mourtada di ko ziyaar bu baax baax di am mbégte ci ñëw gi mu ñëw fii wala gi mu ñëw gi mu ñëwati fii waaye nag mu ñëw ci këram goo xam ne mii nañ ko fi lool ci ay taxawaay yoo xam ne du seeram di ko jëmmal di jaar ci moom di nuyu nag fédération bi nga xam ne ñoo ànd ak ci kër maam Diarra gi dañuy teg nuyu bi ci loxol soxna Ami Samb ak soxna Fatou Mbengue ñu ànd nag soxna Fatou Sylla Mbengue ñëpp rek mooy bàyyiwuñ kenn daal di amati mbégte lool nag ci jotaay bi ndax ni nga ko suñ Modou waxee rek sëñ Seex maanaam biñ ko tàmbalee ak léegi yàgg na ba ñu nekk ndaamaatu mhm. ci kër sëñ Jirim sëñ Saaliw la ñu fi fédération daan fekk mhm. seen liggéey dañ koy jëmmal ci waxtu wi rek waaye man nañ jamono bu nekk seen loxo du jóg ci kër gi ndax daayira Soxna Jaara yi nekk ci Italie ñoom kër Maam Jaara xam nañ ko ci ñoom xam nañ kër Maam Jaara ñuy am mbégte baax na ndax soxna si moom boo ñëwoon ñaan rek dañu doy sa kër barke waaye nag yëkkat seen seen tànk yu tedd yi di xeeñtu mboorom seen waajur wa ah loolu ko sëñ Seex Mbàkke wax rek loolu moom du a sant yàlla li nga ci séentu nga am ci lu kawe njort di delluwaat rek di yëkkati kantu cant baax na di ci teg ci loxol suñ Cheikh Mbacke mi ngir mu jàll euh, nag ci liggéey bi ba mu tàmbalee du tey mm-hmm. waaye man mi commencé ba léegi saa yu ñu geesoo gis leen ñaan yàlla suñu fay ko ci keppaar soxna soxna jaar tey am nañ ci yaakaar baax baax di wax na moom liggéey bi ni ko ni nekk nii rek waxtu bu nekk liñ ciy séentu mooy ngërëmu Sëriñ Tuubaa rek képp ndax xam nañ ak bëggam la ndax moo ko ñaan bind ko ci loxoom bu tedd ba bam naa waltu basi bi yataama booba kenn xamutoo ne kër gu mel ne dana taxaw waaye tey ku gis kër gi xam gis bayit bi mm-hmm. nga xam ne ñaan ñaanam ba lii lay wund ca noonu la ko suñu maam Sëriñ Fallu waxe woon mm-hmm. ma nga tey ca àjjana bam ñu koy wax ne ma seen liggéey bi Sëriñ wax na ko man ko mu koy bëgg tarme ko suñu mbàkki bindal ma ko waaye nag alhamdulilah ba mu ko waxee loolu ndax tey mbind maa ngi fi te moom ma nga ma kon nag di di mbëggu Sëñ Tuubaa mm-hmm. rek mooy mooy mooy sama bus liggéey bi ba bañ na ko kër gi kenn bañ koy sanc mm-hmm. la 11 la 11 novembre 2018 taw feex ga ca feeñaat mooy 11 novembre googee ci la Sëñ Tuubaa ñibbi si jógee ci muy ma leen muy ma leen mbégte ci baatu waltu basi gi mu jëfandikoo foofu ndax na na nga def mooy mbégum jilim la wax fii ñu wax ak yéen li fi jaatu jaar ci xale mm-hmm. ëpp na juróomi téeméer gone waaw ñu ngi ci 511 ci xale yoo xam ne dugg nañ ci kër gi te mën nañu ñi ci ëpp daanaka juróomi téeméer yëpp ba ñu judd la ñàkk seen waajur ba fii ñu wax tey jii tey jii rek am na ñaari demande fi ñëw yoo ne kenn ki ay seex la fi bàyyi kenn ki bàyyi xam ci kenn muy liggéey boo xam ne nag li ñu ciy wax rek tey jii Sëñ Tuubaa ab sagam la ndax lislaam ba lislaam jeex Sëñ Tuubaa moo ko njëkk am ci Sénégal ci Sénégal ah ñu sant yàlla nag ba nga xam ne fu nit jaaxle mm-hmm. xelam daj nekk ci kër Sëriñ Tuubaa jaaxal sa xel daj fare loolu nag kër gi alhamdulilah barim kër gi fànq na ko tey jii ànd mbokk fi ñëw ñoo xam bi ñëwee yéem mooy kër gi lu ko mën a àttan ba ak sa fii ma ne ko nag moom lu may sama taalibe lépp luy ak suñu dara ko fekk loolu mooy jaayante gi ñu ci bàyyi sàllaaw fii ñu waxee yéen tey jii rek bi ñuy xëy kii saytu meew nee na benn pot meew deux moo fi moo fi des te boobu xamuñ leen lu fi war a ñëw kii yor yor mbiru meew dana danañ benn pot meew deux moo ñu moom lañ dese ma ne ko waaye mën naa dem bëccëg mu ne waaye mën naa dem bëccëg ba mën na jàpp ci yàlla képp mën pot meew wax yàlla baax na waaw loolu loolu waa ay deena mu ngoog waa deena mu ngoog waaye bu wér sax waaw liggéey bu nangoo nangoo sax te boobu la la ci la ci dool ba leen sant yàlla mooy 2013 am na xale yoo xam ne bi ñu juddoo ay seex lañ seen yaay dafa génn àdduna mhm. ñu dem ab diir seen baay fekki ko waaye bi ñu bëgg a la benn xale bu jigéen bi waaye wàcc alxuraan ci daara ci nga ne moo nga ne moo njëkk wàcc alxuraan fii oh. kon nag lii bëgg Sëriñ Tuubaa mooy saytu bakkeen xale yi waaye nag sàmm seen diine ba def ci ñoom alxuraan karim loolu liggéey bi mi ngi ci waaye buñ ci amee nag tawfeex googi nag ànd guñ ko ànd nag njaboot suñ Tuubaa gi rek la te njaboot gi bu ñu ko waxee nag dara jiituwu ci jotaay jotaay bii tey kon nag ñi ñaan yàlla suñu borom nangu jëf ji te la ci Seex Mouhamadou Mountakha taxaa waxee woon waxoon rek ñu koy ñaan mu fi loolu te wér kenn bañ ko waxee dane liggéey suñ boo gën a màgg man xaw ko daana daana ma yéen da ngeen am tawfeex mu jaar seeni loxo waaw ndax rawale bakkan waaye rawale pas-pas boole ca tey lislaam ñàkkoon na ay doom yu bari ndax lu mel nii ñii ñàkk seen kan sax far ndax am na ñoo xam ne jaaxle dañu daay jàpp ba jëriñ jël seen doom lu ñu am jox ko rek ndax bëgg mucc waaye nag bi kër gi taxawee léegi googu jaaxle jeex na kon nag ñii nga xam ne ñoo tax jaaxle gi jeex mm. mooy jotaay yu mel nii képp mm. ndax état fekkuñu fi kenn fekkuñu fi waaye nag Sëriñ Tuubaa moom moom du ci xaar état nii suñu taxaa jox ñu bëgg dem ci mbënd mi mm. lépp Sëriñ Tuubaa xam ne ko baax ndax xam nañu li wax sànq rek uh-huh. lii da ko ànd ak yéen kon nag ñi daan suñu kàddu rek ci ci turu kër gépp ak sama waajur yi àndal suñu sono maam suñu ko àndal waaye nag di sono teg lu yoo tam si loxo sono sono bintu mu joxal ma ko sono soora mi nga xam ne wax dëgg yàlla liggéey moom da ko def ni ab liggéeyu boppam waaw guddeeg bëccëg lépp lu mu xam jàpp na e moom kay moom ju lenn mu jógu fi wax dëgg yàlla waaw waaye ñuy sant yàlla suñu borom baax la di ñaan yàlla suñu borom nangu jëf ji te suñu seex na sa mbub moom noonu xanaa ñëpp ñoom waxtaan ci <laughs> incha allah <laughs> eh, xam naa kon ñoo dem ci bi eh, nuy ñaan yàgg fay ñëw yàgg ko fekke ndax ni ko sëñ Fall waxee soobe bakkan am na solo waaye soobe pas-pas ndax bi fi amuloon xale ñuy jël li leen di yóbbu ci ay yeneen crèche ay Moustapha mën a doon ay Jean wala Paul ki François waaye loolu moom Sëñ Tuubaa dimbali nañu ci kon yéen ñi ci dugal seenu ñàq yàlla leen yàlla fay soxna su kon nga defal nu ñaan nu yàgg fee ñëw yàgg sëñ bi nangul na ko amin sëñ amin amin Mbakke amin amin Mbakke sëñ Tuubaa waaw waaj ji fu aajo bu andi daal yàlla na faju ci barke barab bi yërmaane barab bi sëñ Tuubaa Mbàkke soxna Ami nga yàgg fi loolu te am wér yàlla defal na ko ñun ñëpp barke sëñ Tuubaa sëñ Muntaxa dund ba doyal Mbàkke amin amin barke borom Tuubaa amin lii mooy liggéey bi ndax dëgg la li ñu wax mooy yéene yi kër gi mhm. mooy jëmmal ñaanu sëñ Tuubaa dëgg la te sëñ Tuubaa ba meen sëñ fi mu nag ma def may mbégum jërimi te fàttali doon tii su ñàkk waajur ci man fépp fu doom di toll naan sama waajur doon dund rek mhm. Sëriñ Tuubaa nee bu geesoo na ma gis te ñii nag misaal lañ ci loolu ndax ñun li ñu wax mooy li alxuraan wax ñetti ay alam yi ko yette man fa aawee ndax mhm. na ba muta na gàllu seen doom andi fi te la ca dolli ko mooy mhm. waaja daka daalan fahade fekk la xamoo ma xamal la njël benn xam ne mooy alxuraan karim moo tax ñu bëgg na xale yi xale bu ci oh. nàmp ba fer dem say mbokk ba xam leen soo matee jàngi ñu indiwal kër gi tax taxawu la li ñu wax sànq am nañ macha am nañ xale yoo xam wàccante suuf kaw bi am ñu jàll ci kaw te ni mu amee ci góor ñi noonu amee ci jigéen ñii ci kaw so comme ni ko seen nii yëpp dañu ko tuddee kenn sëñ bi waaye fii fii mooy nekk Soxna Fall Dia mu ngoog ni xaare mu ngoog <laughs> nekk Soxna Fall Dia bu mm-hmm. jigéen ñoom ñoo ne ci kaw fa la ñuy jàngee tamit waaw waaw ñi amee góor jigéen ñi jàng ni góor ñi jàng ñii ci kaw ñoom it waaw bisimilah bisimilah waaw waaw ma dem ak moom waaw si seex ñëwoon def si seex daa mel ni ñu doon wax yaa ngi fere <laughs> bisimilah bisimilah waaw hmm? kay kii man la sant sant yàlla bu baax waaw bisimilah. <laughs> bisimilah moo nekk noonu <laughs> waaw bisimilah waaw kii bi neexul lool da ngay jàpp foofu rek kii bi neexul lool. <coughs> fii allah <laughs> bisimilah. na ngeen def ay ñoo xam ne ay seex lañ. wallaay bisimilah waaw. so soxna yi ñoom ñoo yor xale yi. waaw nga ñaan leen baax a baax ci liggéey bu mucc ci ayib la ñuy defee ca soxna Astou moom si mu talaa la. waaw ànd ak waa fédération daayira Maam Jaara ñoo nga sees xale waa jàmbaar lañ lool lool lool. liggéey boobu ci ci xol daanaka dañ mel ne ñooy liñ ci man sa seen yaay mënu ko ci waaw ci ami Fall <laughs> ndeysaan ñoom na fii xëy na tàngal waaye docteur yi ñoo ngelaw lu baaxul ci xale baax kay baaxul ci xale moom macha allah waaw <laughs> ndeysaan yow Cheikh Khadim waaw bisimilah waaw ndeysaan waaw wallaay jërëjëf saa waaw jë jëlal ko jël jël ñaam ñaamaal na nga def ko wax yàlla lu maa seet xarit sax te ne 64 ñoo fi nekk lépp lépp waaw mais bu dee livre rek ay 19 la loolu moo ñu yot ci biir mais am nañ système bi ci bici mooy ñi xam ne ah. seen yaakaar seen a waaye mënu leen dundal ci la kër gi mooy mooy dundal mooy faj loolu li ci am ma ci mën a 54 livre kii maanaam kii ne par mois li ñu am ci li ñu naan ci meew du ëpp 200 pour kii kii man kii moo nekk soxna Awa Bousso waaw. nekk soxna Awa Bousso soxna Fall néeg yëpp dañu koy nekk wàkk sëñ Tuubaa soxna Fatou moom romb nañ ko fii bii ñëw ci bunt ak soxna Fatou ma nga ne soxna Fatou ma nga ne waaw bisimilah bisimilah mu ko bisimilah ñu xaar mi ñëw bisimilah ah kaay xaaral ma jëlal la ana kii kaay jëlal ko waaw léegi dañoo dañoo xaw a taqe moom moo tax ñaar bu ñu toll ci état bi ba commencé xàmmee rek dañuy gaaw yóbbu la seen i bokk ndax ñu mën faa màgge ba xam fi ñu bokk am affection familiale ba boo ñoo xam ne am nañu bokk bu war a jàngi rek ko jël mu jàng si euh, bu jàngee ñu indiwaat lu ko may boo liggéey dootu jaxasoo ñoom waaw waaw cameraman carrément <laughs> mooy néeg sonam yi tëlloo waaw moo ne waaw waaw mu ko Hmm, waaw ndeysaan moo xam moom dañaan moom it bi ndeysaan bi si saer bi di nàmp mhm. ci la wàccu liggéey waaw nga xam soxna bu sa moo ko mu àggale suñu baara sax gis <laughs> mu sàkk naa ko a <laughs> bokk yaay wallaay ndeysaan mën fii ci kii ci waañ bi fi ñu la xale yi aminta loolu sëñ bi wax na de macha allah fi mooy wàññi waañu xale fi ne léegi lépp ay pot yu vide la waaye fi ne bu weer dee ba ñu jëlee pot yi naan fii danga naan lii xale mu ko jeexal parce que lu gàtt gàtt xale bu nekk dana dana jël huit pots ci par mois lu gàtt gàtt am na yoo xam ne xale bu nekk mooy mes mi wax sax sax xale léegi boo ci amee presque lu xaw a jege ay seen nangam xale moo tax fi ne fii chaque fin

macha allah jërëjëf waaw na ndax yàlla jërëjëf waaw de dootu yombal waaw dëgg mu ko waaw ñoo ànd waaw dëgg la macha allah <laughs> loolu moo koy sàmm ak sa waaw jërëjëf waaw jërëjëf si xarit waaw waaw waaw mu nga mi ndaamaar bi nekkee ndaamaar waaw macha waaye nag sono waaye nag waaye nag dégg nga sëñ Seex sono sama yaay ji ngeen ñaanal ma ko gis kere ba ñu ubbee kër gi la tëj kër moom maam bu toon moom kër gi mënta nekk maam guddeeg bëccëg waxtu lépp da ko bàyyi ngir kër gi te loolu loolu mënoo fay ko ku ko defal ndax ko ku ñëw fekkaat ko fi kon ngeen ñaanal baax yàlla guddee aw fanam ta yàggal ko lool te bi la ko waaw bakkaar usa nga xarim waaw jàmbaar lool lool macha allah waaw jàmbaar waaw jàmbaar lool <laughs> waaw mm-hmm. bàyyi Fatou kañ la. <laughs> waaw waaw nañu sant rek waaw sant yàlla bu baax rek waaw. ñu liggéey jërëjëf nañu pomp rangoon yi. jërëjëf waaw ñu demee Europe. Mm-hmm. ñu jaayante laxasaay suñu biir. waaw ñu jaayante laxasaay suñu biir. jërë ngeen ko waaw soxna Bintu waaw waaw ñoom lay jëriñ moom macha allah. jàmbaar lañ dëgg la maam la waaw mooy mooy waajur waaw moo leen jiite jàmbaare lool lool sax waaw jërë jërë ngeen jëf waaw di waaw di di nuyu ñëpp rek